bàyyi Bulldozer mu nuyoo ñu doog a wéy waxtaan wi Bulldozer nuyu naa waaw maa ngi di fay bu baax baax Ousseyn di nuyu ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jug si yoon bi di sant su ñaari waajur xam nga di ngeen nuyu bu baax a baax a baax yéen presse bi xam nga di di di ngeen jégalu si déplacement bi ku ne xam na ne fii dafa sori xam nga tey nag dama am contentement parce que contentement bi mooy fii ngeen ma fekk nii tey fii laa juddoo yaroo fi màggee fi fii laa defee lépp ku na ne 2014 2013 laa dem Mali ba mais suñu carrière yëpp ci lañ ko débuté te maa ngi fàttaliku tey bi ñuy commencé bëre nekk ay booy ndaw comme xale yu ndaw yi ngay romb ñuy bëri si mbokot fii ngeen ma fekk nii tey fii nga am njëkk simeeku takk ngeen bu nekk xale bu ndaw di bëree fii mbokot c'était en 2008 bu nga xam nekk fii di bëre nekk fii topp gars yi fii moo nekkoon école yëmbal gars yi fi ngeen daan ànd ne ñoom ak sëy mbëri yëmbal yi ñoom tonnerre gars yi fi ngeen daan di nga nuyu bu baax baax baax di nuyu àdduna xam nga di nuyu waa Malika bu baax baax baax xam nga di nuyu famille omarienne bi yëpp di nuyu bu baax a baax baax sëñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu képp ku may ñaanal waa Avion bi xam nga waa Gambie Guinée euh, waa Mali xam nga ba Libéria maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp. kon foo tegoon combat boobu nga ñëw ak na nga bëree ñàkk ci ñu toog di gis la nga jëlaat benn avance euh, nga ñàkk a xalaataat wala xoolaat bu baax. yaakaar naa ne ñun suñ ñun ay xale ndaw lañ da ngeen dese suñu carrière dafa bari xam nga dëgg la jóge nañ ci defet combat boo xamante ni préparé nañ ko bu baax a baax baax comme ni ñu ko waroon préparé ñëw yaaga def ñu ñàkk ko pour rectifier ko mu gaaw daal koy rectifier nekkaat suñu yoon loolu moo ma dugal ci focus focus focus focus maanaam damay rectifier sama bopp moo ma dugal ci moom yee mais du geneen yàlla xam na ko. est-ce que rectifier wu ba mënoo woon xool beneen yoon bu focus. non non baax na man rectifier wu kuñ ma jox baax na. rectifié bu man su may rectifié wu kuñ ma jox baax na mais en tout cas dinaa rectifié wu dinaa woon ne gars yi bii passé dañoo juum bii passé dañoo juum si bëri dañoo juum si lépp mais nag ku juumul doo daanu yàlla xam na ko mais nag sant yàlla le 18 incha allah rabbi dinañ xam kan mooy Bulldozer désert bu soobee yàlla. Toulouse dama ko seeti mu ne balaa combat bi doon neex muy jëflante koo xamante ne bu defee dina dindi mais sa diggante gi yaa moom bu defee doo dindi ndax day day nooyu trop ci moom. Focus xam nga ma wax dal mooy comme mbër yi nga gis nii rek mbër yi am dañoo gëj a bëre ñëw boo leen dékkee micro dañuy kontaan ba lu neex la ñuy wax moom loolu moo ko dal moo tax muy wax lu ko mais moom ñi muy àndal ak moom ay mbokkam xam nañ ne am nañ combat buñ wax fenn li ma ko wax rek moo si nekk dama koy génne làmb ji loolu mu nekk ko mu naqari ko dama koy génne làmb ji ak deux ans yi mu toog bëreewul ñëw bëgg a manqué emprunté nga bëgg koo génne làmb le 18 lay bàyyi bëre le 18 Foruz day bàyyi bëre nga 18 focus da ngay bàyyi bëre loolu mënoo si dara instant bi dañoo pare si côté bépp boor bi siflee dinaa la attaqué dinaa la dumate dinaa la daan loolu si dara. sa est-ce que mën nañu koo xaar sa diggante foofu. dégg ma. sa diggante yow ak ba nga doon wàññi. waaw ci combat est-ce que mën nañu koo ci combat bi. bu soobee yàlla man maay xale man maa ko war a def du ma ko seetaan muy def dara. arbitre day wàccee waxam ma dox si kaw duma ko daan dama koy dóor dóor yu métti sa koo daan bu fekkee bëgg naa dégg-dégg mën naa koo dóor sax ba mu daan wërul na ko gaay xaar bitu gaax yi wagaax yi wa taagaax yi bu arbitre wàccee waxam barki Seydina ma dox si kawam duma ko daan ko mais bil xanaa dafa am lu la dee kon déew ma dara kon déew ma dara man xagagaa gëm sama bopp man xagagaa boo xamante ni damaa gëm sama bopp xam nga làmb yaakaar ma kon du Fodous mooy taxaw sama kanam boo xamante ni prouvétul dara si làmb mooy taxaw sama kanam nan day am dara dara dara gu muy sama yoon loolu xel sax xalaatu ko. mais ci doomu daanu boobu kay du saane nee na bu doon xeex dong la foofu mën naa bañ a bu ñëwee duma day xam nga loolu ay wax nga rek tey jii booy marikat ñoo bokk écurie boo ñëwoon laaj ko yaa ngi dégg du xam ga day wax lu ko neex si bee yaa ngi dégg man ñooñu dama leen tontu parce que aw ma ak ñoom ma ak ñoom loolu yaa ngi dégg seen point de vue nga ñu waaye boo arbitre sifflé li wóor mooy bu arbitre sifflé ba génn suñu diggante man ak Fodil wala dinaa ko duma dinaa ko daan. combat bi doon def. doon naa def 4 séances tey suba ma wàññi ko def 3 4 3 daal dama doon varié wax dëgg yàlla tey boo xoogee tey maa ngi si tey maa si si maanaam sama forme si sama forme normal laa nekk instant bii vraiment dama am ay coach yu baax xam nga ñu liggéeyoo ma endurance physique vivacité lépp lépp loo xamante ni. man sama bëre da koy laaj lépp def nañ ko boxe. xeex non man même bu dul feu douze man loolu man ma man lamb mooy sama métier man ku ne xam na ne damay bëre damay boxe ku ne xam na loolu man loolu maanaam si xew la rek damay xëy matinal ànd ak gaa yaa ngi nii ñoom général la ngi damay xëy ñu ànd def ma fiyaa dem matinal fajar cinq heures du matin bidgaaxi barki Seydina Muhammad tey ak suba bu ñu fa jógee dañuy dem salle musculation bëccëg gi dañuy tëdd dem bu ñu ñëwee ay huit heures noppaloo ko ba 10 heures 11 heures dem salle bu ñu jugee salle ñëw ngoon gi 17 heures demee dem école 20 heures dañuy pare man des fois damay jubal dem dem salle de boxe daal di ànd ka ne man noonu waaw man loolu naturel la si loolu yàgg na man loolu moom noonu yaatu dama dégg léegi nga ne bi nga bëgg maanaam forme naturelle moom nga yor kon mën nañoo xaar bi désert bi ñu doon gis non bu baax déggoo mën a damay gëtt si yow ramb ji mu ngaa dinaa ko def man ramb mooy sama métier te gisee ñii nga gis ñii ñëpp dañ ma see yaakaar te open presse bi gis nga fi ko indi yëmbal yëpp ko indi indi ñu yóbbu ma ko Malika yëmbal laa ko indi pour yaatal di si woon nag waa yëmbal yëpp waa tëri magee bi yëpp waaw di leen wax ne seen nii ñibbi si naam maa ngi nii na gars yi ñëw jàpp si yaa ngi dégg man lépp lu ma war bu soobee yàlla naa ko def incha allah foofu day jaay bëri wax day jaay bëri wax. Ah, ah, ah, wala am na lu wax. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy ses supporters parce que bés ba nag defe naa ne ay xale yu am mbooloo xale yu mën a bëre ñoo ci bëri wàllu mobilisation fan nga ci toog. waaw mobilisation alhamdulilah loolu pare nañ ci côté bépp wàllu mobilisation moom pare nañ ci côté bépp xam nga noonu la demee yàlla def na tey ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax suñu monsieur le maire bi nekk fii muy Babacar Ndaw ñu koy nuyu bu baax a baax a baax xam nga di nuyu Pape xam nga su ma gannaaw Abdou Seye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax baax Awin Mbay ñoom jógu daaru gars yëpp ñu siy jàpp ñu ngi siy taxaw waa Malika tamit noonu sama papa Njóogu Saw xam nga monsieur le maire Badou Gaye kii Dia tamit ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp waa Mbëbës montagne Malika ñëpput combat bi gars yi ñoom ko gën a bëgg Malika la siy daj yàlla xam na ne gars ñoom ko gën a bëgg te bis baa nga 18 ñëpp dinañ xam ne lamb ji wallaahi dooy caaxaan ku si mel ni ñoom général Malika xam nga ñoom Papa Dia sama sama grand Diop 2 xam sama doom day Talfa maa ngi di bëggee bu baax a baax ak bépp mbër boo xamante ni ñëw nga fi ñoom booy pire xam ga gars yi bu daal suma ma su ma limee rek dinaa jum